lu jàmbur te ñu am ay preuve yu leer war na la yóbbu tribunal juger la nga delloo ko wala ñu tëj la kooku d'accord nañ ci mais nañ ko def ci norme yoo xam ne norme yoon la loolu la ñuy wax li ñuy wax du leneen d'accord voilà te loolu moo tax tey ngeen ajourné parce que magistrat yi wax na may ma rek ma daaneel foofu mm. euh, les avocats demandent depuis combien de temps à que ñu may leen au moins ñu arrêté tout procès bi pour ñu mën a noppalu mais gars yi bañ mais daal di ñëw euh, jour alors que le gars était en audience Alioune mi ngi nekk en ñu def un conseil spécial xam un conseil extraordinaire jël dàq ko ci place am ba noppi daal di renvoyer procès bi au premier décembre mais quand même xel sax wala muy gumba dof sax war na xam ni lii dafa am ay soubassement politique loolu moo tax nag tey ñun ñu demandons à ce que le pouvoir respecte les droits dans ce pays-là. D'accord. Que les juridictions soient des juridictions qui sont qui soient des juridictions qui respectent les droits de l'individu, les droits de l'homme. loolu la ñu xam ñu leneen. d'accord Cheikh bu faal dañuy seetaan kon benn publicité bu ko defee ñu dellusiwaat ci taable bi ak kii di maître Amadou Diallo bu Amnesty International yaakaar naa ba léegi itam ñu ngi waxtaanee lu aju ci li nga xam mooy procès Karim Wade waaye surtout itam lu aju ci créer d'une manière générale ak euh, traque des biens dits mal acquis kon ñu seetaan benn publicité dellusiwaat. asalaamaaleykum mbokki julit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ndigal jóge na ci Cheikh Sidil Muxtaar al xalifatul aam di taifatil muridiya yal na fi yàgg lool mbàkki te ànd ak wér jaar ci sëriñ Abu Mbàkke xalifatu Cheikh Mamadul Fadal yal na fi yàgg mbàkki te ànd ak wér jaar ci sëriñ Abdul Fatah Mbàkke Fadilu yal na fi yàgg lool mbàkki te ànd ak wér ñëw ci sëriñ Jiili Mbàkke Abdul Fatah ak daairatul saadiqina wa saadiqat soppay sëriñ Fallu yi lan mooy ndigal li mooy fukkeelu yoon ak benn édition journée fàttaliku Serigne Fallou gi ni amal fii ci foire bi war a yemoo ak dimanche 16 novembre 2014 incha allahu rabbul alamin bis boobu nag Serigne Jiidi Abdul Fatah ànd ak daairatu sadiqina wa sadiqat ñoo ngi ko jagleel sayidatina Mariama Bousso wajuru Cheikhul Xadim radiallahu anhum jiidi nee ne mi ngi ciy woo képp ku naan ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah di ci woo njabootug Serigne Touba gi tàmbale ko Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada nee na mi ngi koy yëgal njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi di ko yëgal mboolem njabooti Cheikh Serigne Touba yi waaye di ko yëgal njabootu Serigne Aliou Diouf Lambaye ak soppe yi Seydatuna Mariama Bousso yëpp di ko yëgal mboolem turandoo yi soxna jaare yi Serigne Jiri Abdou Fatah nee na mi ngi koy yëgal le président Macky Sall di ko yëgal premier dame Adja Mariam Faye Sall di ko yëgal premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne di xaritu Serigne Jiri Serigne Jiri nee na mi ngi koy yëgal monsieur Moustapha Diop ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire di présidente conseil économique et di ko yëgal soxna Mariama Sarr ministre de di ko yëgal maître di ko yëgal monsieur Mor Ngom maître Alioune Badara Cissé APR monsieur Moussa Sy maire des Parcelles Assainies monsieur Alioune de Guédiawaye di xaritu Serigne bi Ibrahima Sall directeur général bu SICAP soxna Mame Khary Mbacké député soxna Ami Cheikh Yaba Diop député soxna Mousty Diakhaté député Soxna Ndeye Fall Serigne Djibril War député Adja Aïda Mbodj député Ami Cheikh Yabou Diop di député Serigne Jële mi Serigne Jili nee na ko yëgal Kolle Faye di xaritam di ko yëgal Soxna Ngone Ndoye responsable politique di ko yëgal Soxna Bali Muntaqa jàmbaari Poroxaan di ko yëgal Soxna Aïda Ndiaye Badaloo jàmbaaru Seydina Mariama Bousso di ko yëgal soxna Awa Diop responsable PDS Serigne Jili nee na mi ngi ko yëgal Adja Oulimata Dioum opératrice économique di xaritu Serigne bi ministre conseil di ko yëgal Pape Abdou Cissé ministre conseil di ko yëgal Alxaaji Njaga Caam conservateur di ko yëgal Alxaaji Ibra Gueye opérateur économique di ko yëgal Alxaaji Pape Diagne Grand Serigne de Dakar di ko yëgal maître mu Touré avocat di ko yëgal maître Ousmane Sey avocat ak monsieur ant Samb directeur général bu ASER di ko yëgal Abdoul Ahad Ka maire Touba ak soxnam soxna Maam Xari Mbakki di ko yëgal Adja Ndeye Aram Thiam di jëwrinu kuréel soppe Serigne Jiiri Abdou Abdoul Fatah yi di ko yégal mboolem jullit yi sëriñ jiine nee na ko yégal képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah dimanche le 16 novembre 2014 te CICES di ñaan képp ku fa ñëw yàlla defal la tawfiq programme bi nag incha allahu nii lay tëddee 8 heures ba 10 fa def jàng alquran ak jàng xasida 10 heures ba midi danañ fa def mise en place daayira ba 16 heures di ñeenti waxtu te lay amal la nga xamante ni mooy cérémonie officielle bi sëriñ bi mi ngi ciy woo képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadu rasulullah waaye rawatina soppay sëriñ Fall yi ak turandoo yi soxna jaara yi ak daayira yi soxna jaara yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu leen di gërëm di leen sant di rafetluwaat seen ànd ak wal télévision Walfadjri ñaareelu pàccu émission jamono tey ñuy waxtaanee lu waaju ci wàllu CREI yi ak itam yu bees ya fa xew ndax itam la fa yàgg itam mooy procès ay nit ñoo xamante ni jàpp ne dañoo war saytu lañu yoroon ñu bari nag jàpp ne ci anam ñi ko defee itam rafetluwuñ ko ñi nag di wéyal seen i àtte waaye ci diggante bi itam ñu gis ne dañoo limogé kii di procureur spécial Aliou ndaw loolu yëpp nekkaat yi nga xamante ne dafa aju ci procès bi nga xam ne. lim jur ci coow ci réew mi bëri na maître Amadou jaloo nga bokk ci Amnesty International yéen itam ngeen bokk ci ñi saytu ak ak yelleefu doomu aadama eh, ci lu aju ci procès bi parce que ñu bëri dañ ne woon c'est demande sociale état bi en tout cas foofu la gënoon weeru pour song mbir mi attaqué ko waaye dañ dem ba mu yàgg mu mel ni dafa nekk dossier boo xamante ne bu rëy la te mu mel ni dañ ko minimiser woon au début mu mel ni tey dafa mel ni lu leen xam itam ñu ngi ciy wut a génn wala boog am na luy xeeñ lu wenn ne la fañ jàppoon daal dëgëru bu dëgëroon itam am na lu ñu tiit pour mu bàyyi. waaw euh, social am na parce que sénégalais yi tolloo nañ ci benn instant bi nga xamante ne dañ ne ah bu fi yoroon nguur gi war nañu rendre compte en tout cas certains d'entre eux mais demande sociale warul justifier euh, agenda politique c'est-à-dire que politique yi ñooy satisfaire demande sociale bi. mais waruñu ko def pour des considérations purement politiciennes c'est-à-dire que sànq kii wax na ko euh, même sooy poursuivre nit ci yu mel nii dekkal nañu créé amal nañu waa en tout cas waa Amnesty dañu yaakaar ni mën nañu poursuivre sans pour autant passer par la CREI wala ñu réformer certaines dispositions de la CREI pour permettre au moins ñu respecter présomption d'innocence ak double degré de juridiction mais bon comme loolu weesu nag kii wax na ko aujourd'hui mooy agenda politique ak agenda politicien warul mën a justifier poursuite judiciaire parce que euh, tey peut-être que c'est dans la précipitation dañu engagé ay procédures parce que ils se disent peut-être que oui mandat bi cinq ans la te balaa cinq ans yi di jeex war nañu mën a am te résultat te loolu je pense que dans le cadre d'une procédure ou des procédures judiciaires suñu xalaatee noonu dañuy jub te suñu xalaatee noonu dañuy te noonu defee ko noonu day mel ni justice des vainqueurs loolu ça pose problème parce que justice des vainqueurs la plupart du temps day viole ay droits humains parce que ñun suñ koy wax ce pas pour tey rek c'est pour toujours c'est-à-dire Sénégal war na mën a évoluer ba niveau bi nga xamante ne euh, képp ki nga xamante ne am na problème ak yoon ñu topp ko ci yoon jaarale ko ci yoon mais bu ñu seppi parce que loolu day indi ay problèmes te tamit day indi problème par rapport à la crédibilité de décisions qui sont rendues et aujourd'hui ñu bëri xalaat nañ ko kii wax na ko sànq euh, coïncidence bu am entre agenda républicain ak euh, suspect c'est suspect c'est suspect ça nañ nañ ko wax c'est suspect alors surtout que euh, gouvernement lu muy def ak sommet de l'OCI as aajowul procédure judiciaire alors surtout que nit suñu la waree juger on doit le faire dans des délais raisonnables aujourd'hui euh, ak euh, Mamadou Pouy ñu ngi prison depuis xaw ma ñaata at au moins mat na un an te tant que procès bi di ils vont rester en prison et loolu ça pose problème parce que ba tey ils sont considérés comme innocents jusqu'à ce que la cour les déclare coupables yoon la pour ki nga xamante ne am na droit ñu atte ko ci dans de délais raisonnables ñu toogloo ko nii en prison pour telle ou telle raison qui n'ont absolument rien à avec les besoins de la procédure loolu ñun on estime que loolu viole droit nit ki la euh, euh, Sénégal nekk na réew bi nga xamante ne euh, ci kone àq ak doomu aadama mu ngi def ay jéego sax tout le monde le reconnaît aujourd'hui en door de ces procès de Karim parce que tous les jours Sénégal ñu ngi jàpp ay sénégalais leen tëj prison leen door mandat dépôt leen garder à vue alors que soo xoolee ci biir loolu leen toppee taxawul te ñi nga xamante ni tamit dañ leen tëj wala placé na sous mandat dépôt alors is avaient toutes les garanties de représentation loolu kii wax na ko sànq il faut ñu seetaat ko. parce que loolu tamit violer présomption d'innocence la et priver la liberté à une personne sa liberté et loolu euh, euh, euh, waa Amnesty ñu ngi koy ñaawlu et de ce point de vue je pense que temps yi pa temps yi temps yi ñëw en tout cas temps yi passé am na réforme du code de procédure pénale nous on espère que cela peut servir à améliorer la liberté des individus au Sénégal. d'accord maître Amadou Diallo maître Bachir Ngom ci wàllu dossier bi nga xam ne. bu mag la am ku ko songoon nekk ci ba ñu ngi wax ay waxu ñaari at tey ji ñu ci indi keneen toog lu xawmat weer doog a tàmbaliwaat procès bi est-ce que loolu bokk nga ci ñiy tiit ne mën na am ay effet ci maîtrise du dossier bi wala ay rouages yoo xamante ne vraiment dafa nekk typiquement judiciaire amuñ dara lu ñu laal ci politique. waaw dossier moom comme ni Amadou Diallo waxee je pense que am na fu ñu tase ak moom léegi. Euh, mooy que ne am na ay jéego ñuy def quand même pour améliorer euh, la situation pénale sénégalais yi avec la la réforme du code de procédure pénale loolu moom xam je pense ay jéego la yi xam ne euh, voté nañ ko taay loolu c'est à saluer comme ni mu ko waxee acteur justice la donc loolu dama koy saluer waaw si suspension Amadou Diallo dafa ne tey na xel mais quand même je pense que c'est pas la première suspension procès bi ñu ngi si mais je pense que c'est la troisième ou la quatrième suspension buy am te temps yi passé rek suspendre nañ un peu plus de quinze jours donc je pense que c'est pas la première fois ñu suspendre procès bi parce que c'est un procès volumineux c'est un procès volumineux parquet bi c'est pas un parquet boo xam ne c'est garni parquet bi ñaari nit la le procureur spécial et son substitut ils ont d'autres dossiers qui sont en train de gérer au niveau euh, de l'instruction donc je pense que aussi c'est tout à que ñu demee ba si biir ñuy def ay break di changer di xaw a taxaw pour nit ñi mën a toppatoo yeneen. suspension bi am si procès bi donc moo tax aussi gisuma dara lu si war a mun a tey xel. procès bi li wuute mooy suspendre ak euh, kële ak Aliou Ndao mais keneen ku bees moo nar a ñëw. donc loolu aussi bu amee. Hmm. xam nga cour bi aussi. Euh, cour dafa cour bi aussi dafa war dafa war a juger de manière tout à fait normale. xam nga nit aussi munoo ne damay jàppale nit si benn yëf ba pare aussi nga bëgg ñu juger ko noo xam ne baaxul il faut ñu choisir aussi suñu bëggee jàppale nit ki aussi jàppale naa ko su mën nit la moom lay moom lay euh, supporter si procès bi yow aussi war nga nangu aussi ñu juger si anam yoo xam ne anam yu baax la. ne changé nañ procureur de la république procureur spécial. quand même c'est tout à fait normal que procureur bi ñëw nga may ko au moins diir bu ndaw mun a xool imprégné du dossier de qui est de 47000 parce xam na ko sax ëpp parce que dañuy wax ko ëpp aussi ñu permettre aussi ñi ñuy juger ñu juger leen ci anam yu baax parce que loolu mooy aussi objectif cour bi je parce que loolu aussi il faut aussi ci yenn affaires yi que ñuy d'accord ci yenn affaires yi je pense que n'est pas bon que ñuy politiser lépp lépp ñu am ñu politiser la. lépp ñu noon mi agenda la je pense que amul agenda politique bu ànd ak agenda judiciaire peut-être mun am ay coïncidence dans la politique et dans la justice dina am toujours période yoo xam ne ay bokkul dinañ considérer il n'est pas dit que aussi ñaari affaire suñu considérer dafa nekk ñaari agenda yu ñu boole pour pour pour pour kii ko c'est tout à fait différent c'est nekkul loo xam ne mun nañ ko wax sans risque de se tromper te dafa nekk ay affirmations yoo xam ne c'est dafa xaw a grave dafa xaw a gratuit donc il leen tout à fait bon que suñuy apprécier benn affaire aussi ñu koy apprécier de manière boo xam ne ñun duñ si jum mais c'est c'est très important agenda politique agenda judiciaire mënul la ànd c'est pas l'exécutif qui juge nit ki dinañ ko juger ba mu jeex procédure yi si war a am yëpp dina am te nit mënul jóge fële quand même ñëw interrompre ne lii procédure bi nañ ko bàyyi nañu sote lii à telle date li am loolu mënul nekk si procédure loolu mënul am c'est pas possible donc ñaari agenda yi mënuñu ànd le dossier procédure bi enclenché nañ ko comme enclenché nañ ko nu mu war a nu ko war a suivre nañ koy suivre mooy audition ak plaidoirie donc loolu aussi quand loolu moo nekk di xew instant yi leneen xewul kon coïncidence bi rek moo. coïncidence moo am. comme ci coïncidence day am dina am si lu ne. dix dix novembre ba cinq décembre amul manifestation. Euh, dàq nañu kii Alioune Ndao suspendre nañu procès Karim loolu yëpp amul benn effet boo xamante ne ci agenda bi aju ci francophonie wala. mais surtout ku ko bëgg gisee foofu. mënoo si dara mënoo si dara parce que dafa nekk procès boo xam ne am na côté boo xam ne tous les détails détails bu am les plus petits détails dañ koy exploiter. pour en faire une affaire politique pour en faire une communication à outrance parce que aussi comme ni ma ko waxee léegi stratégie am na ku nekk sa stratégie que mun la si génnee donc de l'autre côté am na sa stratégie depuis le début moom la ñu am ba léegi moom la ñu am ëllëg mais ñoo ñu mënuñ leen génnee seen stratégie ils ont mis en place un système boo xam ne stratégie la communication et tout donc c'est des enjeux politiques c'est normal. Ah, ah vous non si ñoom. pour vous non ñoom ñoo nekk en jeu politique parce qu'ils disent que non ñoom ñoo ne. non non du tout du tout parce que ñoom ñoo ne. non non affaire boo xam ne c'est pour les briser politiquement ñoom ñoo ko wax donc. jàpp ne loolu affaire politique la da di yàqal politiquement te ñoom comme da leen di yàqal politiquement loolu la ñu wax ils à tout pour da leen la ñu wax depuis le début ils ont parlé de politique <coughs> ils ont parlé de politique parce qu'ils ont dit que seen camp la ñu attaqué donc dañu leen bëgg a yàqal. mais ñu leen bëgg a yàqal politiquement il est tout à fait normal ñu teg stratégie politique. pour bu ñu leen yàqal politiquement. donc loolu loolu demee. de poursuite ciblée quoi. voilà voilà loolu wax donc c'est normal que ñu am stratégie boobu. Pape euh, parce que dañ gis ne aussi depuis quelque temps euh, comme ni ko sëñ Cheikh Sadibou Zodouat doon waxee. am na ay mesures yoo xamante ne dañ jàpp ne c' est des mesures liberticides yoo xam ne moom sa bopp daal mu ngi bugg a am 5 décembre ñu ne amul benn manifestation bu ñu nangu ci ndakaaru suspendre nañ itam lii di procès bi loolu itam coïncider ak sommet francophonie bi ñu fa war a amal est ce que loolu nit mën na cee séparer carrément aussi benn agenda politique pour mën a laxasu ci procès bi. waaw li nga wax noonu moom moom la ñu tuddee rek une confiscation euh, moo fi am pouvoir législatif mm. pouvoir judiciaire mais en réalité man dama jàpp ne Sénégal la justice n'est pas un pouvoir un pouvoir judiciaire n'existe pas parce que un pouvoir ne peut pas être soumis à une autorité donc loolu mënuñ ko tuddee pouvoir leneen lañ ko mën a tuddee peut-être man bu ñu ko tuddee woon autorité mën naa d'accord parce que boo boo demee France sax foofu moom ñoom. bu ñu ne autorité de la justice wala autorité judiciaire man mën naa d'accord mais pouvoir judiciaire man gëmuma ne am na Sénégal parce que un pouvoir ne peut pas être à une autorité parce que boo xoolee parquet yi seen patron le ministre de la justice il est le patron du procureur de la république du procureur général et du procureur spécial nga dem conseil supérieur magistrature seen carrière ak seen affectation ak lépp chef de l'état moo koy présider donc loolu mënuñ ko tuddee pouvoir léegi nag bu fekkente ni véritablement bëgg nañu parce que question bi nga posé ni par rapport ak agenda bi nga xam ne ci am dafa am loo xamante ne dañ koy seetlu te acteur de la justice yëpp dañ koy ñaawlu te loolu dafa am benn impact direct dafa am lien dafa am benn link bu mu am ak diggante limogeage procureur spécial bi les arrestations sur ordre du parce la police judiciaire mais c'est le procureur mais au nom de quoi tout récemment on a arrêté on avait arrêté kii Fou Malade ba mu ñëw tribunal dañ ko relaxé pourquoi ñu relaxé ko parce que la mu wax bañ jàppoon ko il n'a pas été le premier à le dire rapport moo génnoon di corps ba mu doon incriminé rapport moo génnoon di classé corps boobu parmi les corps les plus corrompus du Sénégal donc moom il n'a fait que lire rapport moo tax ba mu ñëwee dañ ko dañ ko relaxé le journaliste Félix Zale bi ñu fi arrêté woon te mu bindoon ko en prison alors que rien ne justifiait son emprisonnement un simple demante du ministère de la santé aurait suffi pour rétablir la vérité léegi nag man li ma bëgg wax foofu mooy c'est-à-dire que ñi ñu war a arrêté jàpp parce que dans ce pays am na fi ay nit yoo xam ni mois bu yàlla sàkk wala mois sax bëri na semaine bu yàlla sàkk tribunal indi condamnation ferme teg seen kaw jël mu ak assort une condamnation sorti de mandat dare mais kenn du leen exécuté dañuy continuer di dox ma xam nga benn bandoola ni teg sama kaw condamnation ferme mandat de mandat d'arrêt ñu leen di bàyyi ñu circuler librement boo ma ci joxoon ndigal léegi Ousmane ma limma la nit ñooñu ñëpp ñan lañ ay nit ñu siiw la ñu xamuñ xam ci ndigal ma leen di cité fii léegi si plateau bi pourquoi dañu leen exécuté dañu leen arrêté cest à ñi ñu war a jàpp dëggantaan duñu leen jàpp dañuy fi dañ leen fi bàyyi di arrêté ñeneen ñoo xamante ne waruñu leen teg loxo léegi nag loolu lu ko lan moo koy indi problème bi du leen lu dul da ngay gis procureur instruction yi muy jot rek lay mën a exécuter parce que mënul jël mënul jël maanaam am indépendance boppam c'est-à-dire mooy li ñuy wax ci indépendance rek magistrat bi moo koy xëccal boppam mais procureur c'est-à-dire moom moom ragal na sax arrêté benn nit alors que hiérarchie bi d'accord c'est moom ñu teggi ko mu tax il ne fait que suivre les instructions du ministre de la justice loolu moo am cest procureur dafa war a xam ne tu es le procureur de la république et non le procureur du gouvernement di arrêté nit di jàpp nit saa yu la ci ministre bi joxe ndigal te ministre bi président moo ko jox ndigal tant que jëf yi nag mi ngi am indépendance de la justice mënu fi am justice bi mënul nekk yoo xamante ne dafa nekk fii kenn mënu koo weddi loolu nag en matière de sécurité day garaaw parce que gis nañ sax euh, ñu doom am doute ci grâce présidentielle ak liberté condition yi nga xamante ne foisonné nañ fi mais nañu sax critères yi ñu ciy teg est dinañ koy. gis nga nga parce que grâce moom moo gën a métti. parce que am na yenn jëf yooyu yooyu jëf mënoo am grâce présidentielle boo rey crime de sang mënoo ci bokk trafic de drogue mënoo ci bokk viol mënoo ci bokk pour rëcc foofu nag dañuy dem ci libération pour mu jéem a xool yan saafara la ñuy indi pour régler problème yooyu Sénégal bëri na secteur boo dem am na jafe-jafe. muy feneen feneen ak feneen justice bi dafa am ay problèmes yoo xamante ni il faut qu'on ait le courage de relever ces problèmes là dafa am ay jàngoro yu fi nekk te ñi nga xamante ñoom ñooy acteurs yi mënuñu wax peut-être que devoir de réserve moo nekk seen kaw ñu wax mais dañ koy ñaawlu ci suuf dañ koy joytu ci suuf. donc bu fekkente ni bëgg nañu état de droit bi ñuy wax bonne gouvernance beeg indépendance de la justice bi mu am il faut que ñu xoolaat doxalin yi naka lañ koy doxalee il faut que ñu xoolaat rapport yi entre njiit yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy justice bi ñu ñu ñu xool nañ koy doxalee loolooy tax confiance bi parce que actuellement dafa am lu ñuy tuddee rupture de confiance entre la justice et les justiciables dafa am benn rupture de confiance bu ci am parce que dafa am ay jëf yoo xamante ni dañ koy gis ñu koy ñu koy jëfloo ñi yoru bi day indi manque de confiance bu bu ñu ci doon ay exemple duñ fi jógee affaire Aïda Ndiogu moo ci. regardez ce qui s'est passé à chambre d'accusation uh-huh. juge yi yoroon dossier bi demoon ba koy may liberté provisoire ñu foqat ko seen loxo jël ko. mais c'est un scandale mais loolu day tax kenn dootul amati confiance ci justice bi donc exécutif bi na génnee loxoom ci fonctionnement justice bu ñu bëggee indépendance de la justice am Sénégal d'accord séparation de pouvoir euh, Cheikh Sadibou Fall parce que aussi loolu dafay nekk beneen problème boo xamante ne tey euh, parce que maître Diallo mu ngi koy wax di ko rafetlu ci réforme bi ñu def ci euh, code pénal bi mais ci côté li nga xamante ne tey ci wàllu politique ak réew muy doxee tey jii est-ce que nit mën naa jàpp ne tey am na yenn sumb yu mën a sumb tey mais séparer pouvoir bi ak li nga xamante ne ay dossier la taxaw ak fi ñu toll tey nii nit mënati naa am yaakaar ci restaurer loolu nga xamante ne mooy confiance diggante justice ak justiciable en tout cas tant que euh, régime bii mi ngi doxale ni muy doxale je crois que ni yaakaar boobu bu ñu ko amee tam day parce que dëkk pour mën a doxal dëgg dëgg dëgg démocratie comme ni ñu ko buggee il faut que mu am une véritable séparation des pouvoirs il faut que le pouvoir exécutif mën a exercer son rôle le pouvoir législatif mën a exercer son rôle en toute indépendance et que le pouvoir judiciaire aussi puisse exercer son rôle c'est Clémenceau moo doon wax ni un pays où il n'y a pas de justice est une prison <laughs> or le Sénégal aujourd'hui est devenu une grande prison dëkk la boo xam ne bii non seulement la justice est inféodée au pouvoir exécutif on a décrit nga ko léegi sur le système de l'inamovibilité ak pression bi nga xam ne bii procureur qui dépend ministre de la Justice qui dépend du président de la République. Donc c'est le président de la République en fait qui est maître des poursuites et il l'a dit. Il a dit dans une déclaration boo xam ne daf ko def à l'étranger que ni il a une liste de gens qu'il aurait pu envoyer en prison oui. ou devant les tribunaux nu mu ko buggee. mais il a préféré euh, voilà faire son choix et envoyer surtout les têtes <laughs> ñi nga xam ne bon voilà ça prouve qu'il n'y a pas une véritable indépendance dans la justice or loolu mooy problème aujourd'hui pourquoi aujourd'hui au Sénégal ñuy interdire le droit de manifester nous ça fait quatorze fois que ñuy déposer euh, ay demande de manifester sur les quatorze benn lañu ci accordé xaw ma ñaar ñi ngi ni tey bëgg organiser benn meeting le 21 décembre ñu ni kenn du fi organiser meeting parce que dañuy organiser sommet de la francophonie li ku ni bërki bi ñuy organiser euh, nu mu titi le sommet de l'OCI mais ñoom fii la ñëw booba temps ñu ngi ci opposition bi ñoo taxaw ni dañuy manifester par force ñu jox leen ñu manifester te indi fuy benn problème bi ñuy euh, nu mu tëddee inauguré le mouvement de la renaissance chef d'état yëpp jóge ci àddina bi journaliste jóge fépp ñëw mais dañuy taxaw ni dañuy manifester contre le le le monument de la renaissance ñu jox leen ñu manifeste bërki démb Ablaye Wade bi mu ñëwee ñëw na fi plus d'un million de personnes génn nañ ci mbedd mi kenn gisu fi koo xam ne bii poto daalam réer na alors ñu yeewu suba nii tey nag comme dañuy def sommet de la francophonie Sénégal daal dañ koy mettre en sous le lépp loo xam ni liberté la woon tu vois kenn waratu sëqat kenn waratu yëngatu ba euh, président euh, Bour Macky Sall ba pare après nag bu leen neexee ngeen def loo ne nekk kurban non du loolu mooy dox réew réew dafa am charte fonda charte fondamentale bi nga xam ne mooy constitution moom moo maye droit ni euh, manifestation kenn amatul droit interdire ko principe bi ñu d'accord moo di déclaration préalable moo di nga yëgal autorité bi nga xam ne bii moom moom moo mooy sa vis-à-vis wax ne que ah man de mu jël ay matukaayam en que bërki dem daf nañ fi marche marche boo xam ne ay milliers de personnes ñoo fi ñëw ñu jógee place de euh, nu mu tuddati euh, de l'obélisque dem ba euh, fale amul benn problème alors tey nag ñun ñi parce que sommet de l'OCI yi am na rek dañuy teral Abdou Diouf dañuy teral sengoor ah donc daal kenn du sa mais donc loolu war nañ ko seetaat kooku de combat alliés yi ñoo ko mën combat boo xam ne bi sénégalais yépp ñoo ci war jóg taxaw ci wax ni saawaay bu fekkee ni dañu bëgg continuer dund ci biir pays boo xam ne bii pays de liberté la loolu ñu ko nangu te ñun duñ ko nangu en tout cas. daañu manifester daañu def suñu meeting te lépp ñu ci góobee nag daañ ko gar Cheikh Sadibou Fall maître Amadou Diallo Cheikh Sadibou Fall moom koy fàttali monument de la renaissance inauguration ba on a manifestation fàttali ko nañ l'époque euh, l'épisode du palais Bourbon à Paris. ba ñuy jox Abdaan aussi prix Houphouët Boigny gars yi dugg nañ fi avion dem taxaw foofu yooyu yëpp nekk yoo xamante ne sa ca bés bala woon bii am na sax décalage ak mbir mi est-ce que yéen da ngeen bokk ci ñi jàpp ne dañu waroon autoriser marché bi nit ñi aussi def li ñuy def pare ci te loolu mooy démocratie. oui en fait man li li may jaaxal mooy. ñu bëgg a manifester defoon nañu seen déclaration préalable mais ce ce qui ce qui m'a frappé man personnellement en tant que membre de Amnesty mooy dañu jékki-jékki gouverneur jël mesure naan diggante telle période à telle période kenn du manifester kenn du rassembler euh, loolu euh, ça pose problème parce que euh, démocratie mooy accorder des liberté parfois contradictoires mais c'est faire en sorte que qu'il y ait un équilibre entre les différents droits les différentes libertés or soo xoolee sommet sommet de la francophonie am na Sénégal am na njëriñ pour réew mi mais aussi les autres acteurs de la vie politique am nañu droit porter leur combat à un autre niveau c'est-à-dire la liberté d'expression maire lu ñu lu ñuy lu ñuy jàmbat war nañu mën a tel que la constitution le permet ñu def ko pour ñun yëpp yëg ko à tort ou à raison ça c'est une question mais aujourd'hui suñu ne parce que simplement Sénégal la am gan kenn warul sëxët loolu mun mënuñ ci d'accord parce que loolu violation de la liberté de manifestation la fondamentale et c'est une liberté consacrée par la Constitution donc euh, euh, euh, soo xoolee depuis Sénégal depuis am nouveau régime bi mu ñëwee mais interdiction yi dañoo bëri dafa bëri et Amnesty l'a fustigé à maintes reprises mais manifestement on est toujours dans ce registre la di interdire à marche kenn warul wax parce que simplement telle raison a été invoquée or ñoom su ñu amee seen raison de sécurité jël matuwaay yëpp pour mun a assurer sécurité euh, euh, organisation du sommet de la francophonie mais également permettre à d'autres Sénégalais qui veulent se servir de cette tribune-là pour exprimer le désaccord sur certaines questions donc man d'accord uma que ñuy interdire ay manifestations parce que simplement le motif invoqué c'est l'organisation de, euh, de de la francophonie loolu du yoon am na si d'accordu ci suñu bëggee assurer sécurité nañ jël ay matuwaay mat sëkk assurer sécurité pour ñëpp mun a exprimer au Sénégal dans des espaces apaisés parce que lii su continuer nii mun na indi leneen et loolu kenn ñaanu ko yàlla voilà. maître Amadou Diallo maître Bassirou Ngom euh, cette tendance bi ngeen am noonu. ngeen koy jiiñ à vouloir restreindre les libertés loolu dafa tekki ne da ngeen am ñenn ñu nekk en face yoo xamante ne da ngeen yëg lu ñuy waaj wala da ngeen gis lu ñuy waaj wala seen comportement. dafa laaj ay mesures particulières yoo xam ne moo expliquer tendance boobu. bon li nga wax peut-être mën na am mais du ñëpp <laughs> xam nga aussi euh, damay ñëw si pap pap nee na su ma koy tontu dama koy jéem a euh, yàqal ses idées mais loolu nekkul suma objectif parce que dañuy waxtaan te un débat d'idées dafa intéressant <coughs> parce que Sénégal ñu ngi déglu donc suñu soulever un débat d'idées ku nekk indi li nga am je pense que sénégal yi dañ si jëriñu. parce que loolu mooy suñu objectif ñu ñëpp yow yàgg nga tribunal chroniqueur yàgg nga seetaan procès yi mais parfois aussi je me pense que da ngay xaw a juum parce que tu vas trop loin parce que booy wax yenn affirmation yi je xam nga ma justice dafa garaaw dafa doy waar ci dëkk lu muy aar ci dëkk moo garaaw moo tax man aussi toujours quel que soit le régime quel soit li ci nekk man justice ay mbiram dama ci xaw a kii parce que c'est tellement dangereux ngay jeter l'anathème sur la justice c'est pas bon et te justice dafa nekk loo xam ne dafa vaste dafa am ñu ko composé ñii am nu ñu mel ñeneen am ñeneen nu ñu mel donc c'est pas bien aussi ngay wax ci justice di wax ci yenn di wax yenn yi di wax yenn affirmation yu tranché yoo xam ne quand nekkul loo xam ne am na preuve wala mun nañu ko teg donc c'est très important parce que boo ko waxee rek da ngay indi ñeneen aussi yeneen gàllankoor suba euh, si affaire marché yi man je pense que li suma mag ju baax ji wax léegi le ministre Cheikh Sabou Doubou Fall ne Sénégal c'est une grande prison Sénégal dëkk bu apaisé la dëkk bu normal la boo xam ne am na démocratie je pense que am na xam ne yoo xam ne quand boo koy wax c'est un peu excessif mën nga am sa position mën nga am sa point de vue mën nga am li nga bëgg mais aussi euh, à dire certaines choses quand même je pense que c'est excessif te Sénégal ñuy déglu xam nañu loolu c'est très excessif léegi bon pour pour pour pour ñëw si loolu je parce que Sénégal ñi nga xam ne ñu ngi def li ñu war a def euh, amuñu benn problème ñu ngi dund tout à fait normal te amuñu dara lu ñu ragal c'est parce que loolu moo gën a am Sénégal moo gën a am solo Sénégal xam nga li changé Sénégal li changé mooy te courage la boo xam ne aussi régime def ko war a am parce que parce que am na ko te ñëpp war nañ ko ko nangul mooy que ne au lieu de suivre des lobbies ñu suivre li nga xam ne moom la population bi bëgg moom ma askan bi bëgg lu difficile la nag lu jafe la parce que lobby dafa garaaw am na ñoo xam ne boo lañ xam ne seen teranga boo xam ne c'est indi nekk lu ñu war a am dañ la teg lu ne dañ teg pression bu ne dañ def lobby bu ne pour yàqal la loolu c'est important te moom loolu moo xew si dëkk bi am na yoo xam mais moo xew donc loolu courage la laaj ak détermination. Non, parce que nekkul loo ah, xam quand même c'est très important waxoon naa ko. expliquez-vous je l'ai une fois dit newoon naa le Sénégal am na ñoo xam ne ils ont formé de lobby ñi doon dund dund bu leerul toutes ces personnes tant que le président Macky Sall la là naan dama bëgg affaire yu jub ces personnes vont lui mettre des bâtons dans les loolu tout le temps qu'il sera là dina am. donc loolu détermination la laaj pour parler maintenant des marches marches yi affaire francophonie je pense que dafa am nu ñu ko war a. Euh, euh, dama déglu barke dem le premier ministre dafa am lu am dafa wax lu am solo nee na kenn buggul confisquer liberté kenn c'est vrai que sommet OCI on avait pris un arrêté pour interdire une manifestation pendant trente jours au Sénégal un mois loolu je pense que 2008 la woon di woon régime bi beneen régime la woon tey tey nee nañu te pourtant euh, mais ces gens-là aujourd'hui fi toog nekkuñu di naan c'était liberticide parce que vous avez vous avez manifesté eh, vous avez manifesté weer ñu ne Sénégal kenn du manifester kenn du def dara manifesté wu leen je pense que loolu mu amoon dé manifesté wu leen aujourd'hui li xew mooy dañu ne danañu ñun Sénégal la ñu nekk Sénégal lañuy ñuy sargal doomu Sénégal Abdou Diouf la ñuy sargal fii cinquante cinq sept cinq de d'État dañu fiy ñëw contexte ouest africain am na lu fi nekk am na des velléités d'insécurité boo xam ne ñu ngi fi te peut-être am na niveau d'information boo xam ne état bi su koy wax peut-être moom am na ko mu ne comme loolu am na ñu ngi sar plus de cinquante chefs d'État et de gouvernement dañu fiy ñëw te am na quand même sur région lu fi xew yoo xam ne depuis ces ces deux dernières années ñu dem a seet lu ñuy def entre sénégal yi ñu comprendre ne le Sénégal la ñuy sargal te pour sécurité sommet bi quand mun nañ d'accord ne quand même si période boobu ñu jéem a seet nu ñuy def pour sargal ñëw Sénégal am sécurité parce que infiltration mun na am si lu ne si contexte bi ñu nekk quand bu passé bu ñu sargalee suñu gan ba pare parce que affaire Sénégal la te Sénégal dëkku teraanga la qu'on se comprenne ñu waxtaan si kàddu boobu te moo tax aussi maa ngi quand même remercier le président du groupe euh, Walfadjri Sidi Lamine Niass bi dem ba comprendre affaire boobu bi rencontre président bi am bi wax li mu wax parce que quand peut-être parce que il est allé moom aussi ba comprendre affaire bi moo tax mu nangu lu mu def bu paasee nag d'accord loon ci interdiction bi bu paasee nag bu paasee nag bu paasee ñu régler suñu cuisine interne ñu doon manifester continuer manifester ñu doon dóorante continuer dóorante loolu ci affaire Sénégal la. mais lii quand même. ñu bàyyi lii passé. mais léegi entre Sénégal parce que Sénégal la ñu sargal du ab du du Macky Sall. wax nga ne du keneen mais c'est Sénégal. ñii defoon nañ un mois d' interdiction mais terewul taxul ñu interdire leen yéen ngeen def une période mais est que aussi interdiction war na am ci diggante bi parce que si di loolu la waxoon que buñ teree moom violation am na. on est en que li ñu wax mooy. Hmm? ñu ngi. problème sécurité kese moo déterminer gouvernement bi. léegi na su suis désolé suñu demee ba seet ba gis ne instant tel instant mun nañ def lii wala instant bi mun nañ def lee le gouvernement sera prêt à le faire parce que. boo xam ne quand même on n'a pas pris. Ils, ils ont ils ont demande. on n'a pas encore te loolu premier ministre wax na ko. donc quand même il faut que Sénégalais yi aussi nit ñi tout le monde. delloo si seen xel ci li nga xam ne mooy essentiel bu essentiel bi passé nag Sénégal lañ nag ku nekk am nga say position nga exprimer say position parce que solo suñu problème la ñun biir Sénégal suñu suñu biir kese lay nekk. mais quand même. Ah, ça c'est une démocratie à la carte. au Sénégal la possibilité ñun ñëpp du Macky sal du keneen quand li nga xam ne Sénégal moo xew xewle. ñu def ko de manière boo xam ne tour Sénégal dina si yëkkatiku diplomatie Sénégal dina si yëkkatiku quand même turu Sénégal euh, dina si yëkkatiku Euh, Pape jaay bu fekkoonte ne sénégalais aussi bu fekkee bés bu nekk ñu laaj la essentiel nga bañ aussi bés boo leen laajee essentiel aussi am nañ taxawaat bu ñu am en tant que citoyen te seen droit la constitution may leen ko est-ce que ci côté boobu aussi nekkul ne euh, dialogue mutuel wala boo respect mutuel bi waroon am ci diggante yi nga xamante ci seen àq ak seen yelleef dafa xaw a manqué ba moo tax bu affaire bi ñu coincé nii ak euh, décision bi ñu bëgg a waaw man dama yaakaar ni li indi li yëpp mooy convention internationale yi nga xamante ne Sénégal moo ngi koy ratifié. ndaxte ñi nga xamante ne dañoo màcc ci wàll yoon yëpp nee nañu le Sénégal est champion en matière de ratification convention wala traité wala charte bu jug ci àdduna bi Sénégal ratifié. réew yu bëri yu àndal dañuy xaw dañuy def ay réserve waaw alors Sénégal moom du def réserve dañuy ñëw rek di ratifié. Euh, léegi nag jafe-jafe bi fi muy nekk mooy boo harmonise boo boo boo ratifié benn convention internationale il faut nga dëppale ko ak say loi dëkk. bu fekkente ne loolu defoo day indi jafe loolu dafa am ci loi yu bëree bare bare bare bi ma ciy jël exemple rek. mooy bi nga xamante ne euh, charte africaine bi nga xamante ne day tere ñu yóbbu kaso jigéen boo xamante ne dafa dafa dafa dafa ëmb. am na benn convention régionale bu bu am mais ba léegi fii à l'interne ñun dëppalee guñ ko ak suñu loolu laa gis ni dafa indi ay jafe-jafe parce que toutes les conventions internationales dañuy autoriser maanaam dañuy tere lu ñu tuddee restriction des libertés moo xam liberté de circulation la moo xam liberté de manifester la moo xam liberté d'expression la moo xam liberté de publication la léegi nag loolu tant que jógewu fi tant convention internationale sans réserve ba pare duñ ko dëppale ak suñu luwaayu dëkk day indi li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe bu ñëwee fii tamit ci réew mi bu fekkente ne dafa am ay jafe yenn jafe-jafe yu mag yoo xamante ne dafa am wala yenn décisions yi sax parce que da gis ne nguur gi day jékki-jékki rek jël benn décision mais peuple bi duñ ci ànd ak njiit yi loolu li koy indi mooy du am benn waxtaan pré préalable boo xamante ne moom mooy am ñu def ci une démarche inclusive nga xamante ne acteurs yi mu concerné yëpp dañ leen di woo ci table ñu waxtaan dama yaakaar ni loolu bu ko doon def parce que chaque jour ñu wax fi ne réew kenn du ko lan kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo loolu du lenn lu dul yenn décision yu mag yi nga xamante ne mën na indi soulèvement populaire balaa nguur gi di ko jël dañ ci war a concerté wu ak tous les acteurs moo xam société civile la moo xam opposition la sëriñ si sax mën nañ leen boole ci biir société civile ba léegi ci lañ bokk donc dama yaakaar ni waxtaan préalable boobu boo amee ñu boole ci ñi ci war boole yépp contestation yi am ci yenn décision autorités yi dina wàññeeku waaye tamit euh, yenn mbir yi nga xamante ni dëgg parce que boo Sénégal ngay ñëw gis opposition bi ak pouvoir mel ni ay ennemis lañ alors seen rapport warul nekk noonu rapport ennemi ak ami c'est très normal nguur gi bu fi nekkee c'est très normal mu am opposition mais opposition mën na mën ay activité d'opposant sans pour autant que muy érigé wu en ennemi contre le pouvoir donc loolu li koy indi rek mooy ñàkk waxtaan bi nga xamante ne day am léegi loolu li koy indi mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu dënk yenn secteur moo xam ministre yi la wala directeur généraux yi wala yenn yi responsable chef de service yeeg yooyu am na ci yoo xamante ne jarul ñuy xaar wax ci ay ndigal président de la république bu amee ci yow confiance ba teg la benn secteur lay doxal secteur boobu ci yow la jóge waaye mënoo saa yoo tourné rek ni président lan laa war a def du loolu la ñuy xaar du xaal njiit fañ la teg war nga am màcc bu toll ni am courage di jël say décision sans pour autant que nga xaar président naa la defal lii bul def lii loolu bu ñu ko defee rek dina wàññi bu baax tension bi nga xamante ne dañ koy nommer diggante pouvoir ak opposition. monsieur Cheikh Sadibou Fall parce que ci côté boobu aussi euh, ci intérêt euh, national bi nga xamante ne moom la maître Ngom daan souligner yéen nee nañu amoon ngeen temps bi yëpp avant ngeen manifester après aussi yi ngeen manifester mais da ngeen tubb ci xolu mbir ma bugg caa dal loolu mel ni am lu ngeen ciblé. non non euh, li ma bugg wax moo di ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal Sénégal kenn amul intérêt tey dëkk bi tàkk. au contraire opposition comme pouvoir ñi ñëpp dañu war a travailler à renforcer la démocratie parce que benn nguur amul nguur bu dul jeex nguur yàlla rek moo dul jeex te ñuy fekk tey daañu rendre compte ëllëg c'est très important pour te dire que ni euh, euh, nu mu tëddati li nga wax ni euh, maanaam jàmm lañu bugg doxal ci dëkk bi ba some SAU bi passé mais jàmm bokk buggee doxal balay gouverneur bi doon jël mesure d'interdiction pendant quinze jours mais au moins rafetoon na comme dañuy somme bi dañu bugg Sénégal yëpp porte que y compris l'opposition ñu waxtaan seeg opposition bi ne ah li de gars yi événement bi mi ngi am bëggoon nañu daal dëkk bi ñu dexal doxale nii ba peut-être suñu gan yi ñëw ba dem ñu kii loolu mais dañuy yeewu suba gis benn annonce ci gouverneur bi mu taxaw ni les pendant quinze jours kenn du fi kenn du fi manifester sans concertation sans rien et tout le monde sait que un gouverneur est Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur. J'ai été patron du gouverneur de tout le Sénégal. Je sais que le gouverneur ne prend jamais une décision boo xam ne bii dafay yow suba rek jëlal ko boppam te président te ministre de l'Intérieur jox ko instruction te ministre de l'Intérieur concerté aussi avec président de la République donc bu ñu nax kenn xam nañu ni affaire yi doxee un deuxièmement yéen da ngeen ni comme da ngeen bëgg euh, nu mu tëddi euh, sommet OCI bi dañuy recevoir ay gan xam ne bi moom la ko gën nit ñi xamee ci àddina bi mais mooy démocratie Sénégal tey fu ñuy wax démocratie ñu ngi ni jël Macky Sall yóbbu ko Burkina Faso référence à la démocratie moo tax yóbbu ko Burkina Faso pour mu dox fa jàmm pour jàmm mën fa dellu si après le coup de force qu'a voulu tenter seen président la République image bi ñu gën a jàpp ci Sénégal après l'image de piété bi nga xam ne bii nit ñu nit ñu gëm yàlla lañu moo di image démocratie loolu bu ñu ko détruire bu ñu ko bañee détruire comme dañ ne tey dañuy recevoir sommet de l'OCI sommet de l'OCI yi seen am na principe ci principe bi nga xam ne moo gën a dëgër ci yi ko téye mais c'est la defence des droits de l'homme de la démocratie bu fekkoon ne dañu bëgg a joxe image boobu gan ñi nga xam ne ñoo fi ñëw tey bu demee noonu ñu gis ci Sénégal ah ñii de ay nit ñu civilisé ñu ngi nii ku nekk yaa ngi wax li nga xalaat waaye ñi ngi koy def ci jàmm ci nga xam ne moom ñun loolu ñu bëgg ñi ngi koy def ci jàmm ñi koy def ci salaam comme fi ni mu fi mos a xewee mais au contraire day rehausser image de marque au Sénégal en termes de démocratie donc loolu mënul doon gàllankoor du dëgg rax ci dolli pour terminer que ni manifestation bi le 21 la sommet de l'OCI le kañ la en fait je crois que c'est le 28 ça n'a absolument rien à voir et d'autant plus que manifestation mi ngi am fii centenaire sommet de l'OCI bi yéen a ngi jël ba mbaaw yóbbu ko foofu ah euh, tabax fa seen centre de conférence tey polémique bi mi ngi ci kenn xamul ñaar ne war nañ ko tax mais loolu sax du ma ci dellu si absolument rien à voir les problèmes sécuritaires dont tu parles au niveau de la sous-région mais problème sécuritaire yi du tey la exister tout le monde le sait et je sais que bu ñu interdiroon tey manifestation ba xam ñun wóor na ñun ñun daañ ko def muy meeting boobu mais buñ ko interdiree ñun ñu ne dañuy manifester il faut que ministère de l'intérieur génne ay forces de l'ordre pour mën a disperser manifestation yi waaw force de l'ordre yooyu ñu nar a génne pour disperser manifestation yi mënuñu ko utiliser pour encadrer manifestation yi mu dox ci jàmm mu jeex kenn dootul wax dara Sénégal dem ci jàmm ngeen def seen sommet euh, yàlla def ci jàmm ñu delluwaat ci ni ñu daan vivre loolu la ñuy wax notre combat c'est un combat pour la liberté c'est un combat pour la démocratie c'est pas un combat partisan chaque Sénégalais àqam ak yelleef le concerné c'est pas pour contre le pouvoir ce n'est ni contre le, gouvernement mais c'est un combat pour la démocratie et pour la liberté au Sénégal Maître Amadou Diallo Sénégal bokk ci réew yi nga xamante ne xamee nañ leen démocratie régime bi itam ñoo installé wu am les plus beaux slogans au monde parmi ñooñu la rupture est-ce que rupture nekkul tey ñu def euh, de l'autorisation la règle interdiction ñu def ko exception parce que loolu moo fi ñàkkoon apparemment. oui je pense que c'est Abdou Diouf qui disait que euh, démocratie c'est un processus irréversible c'est-à-dire que démocratie idéale la aujourd'hui euh, man su ma déggee euh, homme politique naan lii amoon na fi. certains de les actes d'aujourd'hui c'est un gros parce que sénégalais suñu jëlee kii teg fi euh, jëlee fi ñële teg leen fii c'est pour affaire bi améliorer affaire bi progresser donc aujourd'hui euh, mësoon naa ko wax fenn mois je peux comprendre bel et bien que l'administration wala l'État ne pour telle ou telle raison euh, damay interdire marche mais ça doit être l'exception mais kon loolu aussi la possibilité nit ñi nga xamante ni bëggoon nañu marché ñu mën a attaquer décision bi mais soo xoolee dans la réalité dans la pratique nit ñi du ñu attaquer décision bi parce que xam lu tax parce que suñ dugalee seen recours balaa. voilà fekk passé na donc moo tax ma ne l' état est une partie personne morale ñu bëgg a manifester c' est une association groupe wala même un mouvement am nañu droit am conflit. d'accord naa ci mais mu am ki nga xamante ne mun na atte avant date bi di jot mais nit ñi defuñu ko parce que simplement nit ñi gëmatuñu ni affaire bi dina am résultat dans l'immédiat ba tax na quelque que les raisons qui son invoquées qui peuvent être valables par ailleurs euh, nit ñi duñ duñ ci d'accord parce que simplement raison yooyu nu ñu koy exposer chaque fois c'est même mêmes te amul kenn ki nga xamante ne nekk nag est-ce que raison yi taxaw na wala taxaw et à ce niveau-là <coughs> nous nous estimons que par rapport à la liberté de manifestation et de marche euh, am na recul franchement parce que kii lu mu wax nii Sénégal euh, euh, euh image bu muy jaay image de, de démocratie moo tax nit ñu bëri naw ñu donc aujourd'hui mu am manifestation de l'opposition pendant un sommet qui regroupe cinquante 57 chefs d'État maître Bassirou Ngom moo ko wax mais loolu day rafetal image de démocratie Sénégal alors surtout quand mon nombre à vie mais manifestation comme kenn mu mu am fi xawma place de l'Obélisque ak affaire bu am Diamniadio juste un meeting une rencontre bi nga xamante ne day durer benn temps après su jeexee ñëpp dem seen yoon gisuma loolu naka lay mënee gàllankoor sommet de la francophonie parce que simplement ñu naan woy ay doomu Sénégal lañuy ñuy euh, sargal Abdou Diouf et tout tout ça c'est bien mais Abdou Diouf am na lu mu def pour la démocratie et dans le cadre de la francophonie Abdou Diouf mu ngi xeex xeex na en tout cas mu ngi pare xeex na pour que démocratie en Afrique mu jëm ci kanam donc il faudrait pas que ñu bëgg a sargal ki nga xamante ne poussé na les limites de la démocratie au Sénégal pendant ce temps la ñuy delloo démocratie Sénégal ci gannaaw. surtout que du gan ci moom parce que ba mu dem Palais Bourbon opposition dem exactement exactement mu gis ko. Euh, Bassirou Ngom euh, parce que. doon fàttali quatorze demandes de marche yoo xam ñaar wala ñett lañ ci autorisé est ce que bu fekkoonte ne tey ñu ngi doon autorisé nga xam ne mooy la règle bu ñu interdire tey waruloon mën a poser problème te ñoom xanaa ñooy am problème mu le de la mobilisation mais du doon yéen si côté boobu aussi jotul ñu xalaataat ci tuuti. non xam boo ko exposé noonu da ngay da ngay da ngay dénaturer Euh, da nga exposé ci te contexte contexte bi gouvernement wax na li nga xam ne moom la si gis il a exposé ses raisons ne su ma sañoon nii lay demee bu demee nii nag bu mu passé après ñun on va faire ceci entre sénégalais affaire bi noonu la demee parce que instant yoo na pas encore pris de décision définitive mais dañ ne Sénégal la ñu nekk premier ministre bu ko déglu xam ne waxu jàmm bu dal la wax ak ni mu waxee ak sénégalais ak ni waxee ak nga xam ne ñoom bëgg a wax na leen man dañu gis ne lii sous régime bi lii def fi am insécurité bëgguñu mu am ci Sénégal alors que dañu am ay gan donc pour préserver cette paix là et cette sécurité ak li nga xam ne gis nañ ko ci région bi suñu sañoon ñu def en sorte que sécurité am gan yi ñibbi après nag ñun entre Sénégal yi def li ñuy def mais je pense que loolu ku ñu ko wax war nga ko mën a comprendre parce que tout simplement degré bu mu ko xamee ak renseignement bu mu ci am bi wax ko sénégal war nañ ko mën a comprendre entre sénégale ñu xam ne lii moo rafet dañu def li rafet après nag bu passé ñu sax li ñuy def je que loolu noonu la demee mais nekkul loo xam ne dafa nekk maître Bassirou Ngom maa ngi lay gërëm di la sant Pape Ndiaye maa ngi lay gërëm di la sant maître Amadou Diallo maa ngi lay gërëm di la sant Cheikh Sadibou Fall ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafet seen teewaay ci plateau bi di rafetlu xalaat yi fi jëpp te ñu ngi doon waxtaane mbiru liberté ak itam procès bi nga xamante ne mooy procès Karim Wade ak ñi mu àndal ak limogeage kii di euh, procureur spécial Aliou Ndao ak lépp lu aju ci wàllu yoon ak euh, ni mu lëkkaloo ak yeneen euh, pouvoir yi fi am exécutif législatif ak judiciaire kon loolu lañ doon càmbar tey maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm bu baax Oustaz Assane Diouf mi réalisé émission bi Cheikh Tidiane Ndiaye Ama Gueye Mame Sidi Diop ñi nekkoon fële ak Cheikh Tidiane Diop ca régie ba maa leen di gërëm di leen sant di leen jox daje alxames incha allah ci beneen thème wasalaam